man tamit li ma gëm mooy dañuy wax 15 décembre mais quinze décembre élection du am lu leer la waaw. ci kaw calendrier ci euh, matuwaay moo dul moo dul jàppandi wala lan. non xam nga sëñ Abdoulaye dafa waxoon ne nit ki euh, waxi démbam bu nurook jëfi tayam nit la waaye bu fekkee waxi démb sa waxi tey nuroowul. lan lañ mën a gëm munuma laa ñëw wax dara mu deñ ma waxaat la mu deñ nga bëgg ma waxaat ma di ko gëm je pense que li ñu war a fexe ñun ñëpp rek élection yi bañ a génn le vingt cinq février parce que loolu buñ ko fi bàyyee ah, mais porte ouverte la pour tout le monde donc c'est